حمدي وشكري لمن كل ميزان لو ردمت rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen sant ci jataay bu tedd bi nga xam ne bokki taalibe yi defaat nañ ko ren jublu ci rekk ñëw yeesal seen taaribe ci kanam seen jëwrin seen sëriñ sëriñ Sidi Mbàkke moom Cheikh Abdoul Khadir mu doon loo xam ne jataay boo xam ne bépp taalibe boo xam ne aju nga ci kër seen Abdoul Khadir boo ko déggee waroo ko wuute ndax ki ñu koy defal mooy jawri ni kër sëñ Abdul Xaadir ñuñ donge yi moom lañu sëriñ bi booleel muy suñu jawrin kon bu ñuy def jataay bu mel nii fi moom ñun ñëpp war nañ di ko teewe xalaa di ñëw rekk ci kanam tuuti danañ jox Cheikh Ahmad Mokhtar Bousso mu am ay kàddu yu soññe yoo xam dana ko joxe mbooloo mi waaye balaa boobu rek ñun bokki bi yi ñu soññante tuuti muy pas-pas boo xam ne war nañu koo am suñu diggante ak sëriñ bi mooy kenn ku nekk bi ngay ñëw ci sëriñ bi kenn indiwu la fi yaa indi sa bopp bi nga ñëwee li nga ko wax mooy jébbal naa la sama bopp àdduna ak alaaxira loolu nag boo ko xasee wax moomatoo sa bopp kon sa lépp sëriñ bi moo ko moom kon nag bu ko sëriñ bi moomee ba pare bàyyee la sa bopp nga xam ne li muy soxla ci yow lu néew lay doon kon loolee jàpp naa ne bu yegsee sa yitte yépp war nga koo bàyyi ngir def li nga xam ne mooy bëggu sëriñ bi ndax sëriñ bi kat ak bëggam buñ ko defee mooy li nga xam ne moo ñuy jëriñ lépp lum ñuy woo du dara lu dul loo xam ne sunu njariñ la kon ñun ñëpp ñu bàyyi ci xel kenn ku ci nekk yar ak njabootam ci lim nekk mu jéem cee teete ak njabootam ndax bari na kët ñoo xam ne fa ñu bokk seen ak njaboot xiirtaluñ leen ci ba tax na yàlla yéex bu ñu fi jógee rek seen tur ci kër seen wasila day far day raaf tam doonoon koo xam ne ku ràññeeku woon la ca kër ga ñépp xam ko waaye mu bàyyi koo fi rek aw turam raaf la koy waral mooy da caa xiirtalutoon ak njabootam lu baax nag boo koy def danga koy wommat sa njaboot ba bu ëllëgee ndax nit kii ak dundam dafa gàtt boo fi jógee la nga nekkoon ñu continuer ko ndax loolu moo lay jëriñ fa nga nekk waaye boyal sa njaboot rek nag yii di këfe këf leen ba boo fi jógee la nga lu baax la nga sampoon lépp naax saay loolu bokki taalibe yi dara jëru ko kon nag ñun ñëpp ku ne xam na ne sëriñ Abdul Xaadir rëy ku bokk ci moom ku yàlla def muy sa péete am nga péete seen jëwriñ jii muy sëriñ Sidi Mbàkke moom Cheikh Abdul Xaadir itam ku yàlla def muy sa péete ci kër si Abdul Xaadir xam nga am nga péete mu mat péete ci kër si Abdul Xaadir kon nag lu toll loolu boo ko amee ci yoonu murit amoo lu ko ëpp kenn amut amul fenn fu am lu ëpp loolu kon sëriñ tubaa dafa yaatu ay bunt la waaye boo amee bunt bu ñépp tàmmu yàlla tànnal la ko danga cee xiir sa njaboot booy ñëw màggal indi leen booy siyaare si indi leen ku ci mat a eh, jébbalu nga ommat ko ba ci sëriñ bi nga jébbal ko ko waaye nekk fi te sa njaboot nga bàyyi leen xamoo ci luñ nekk yiy këfaate léegi dafa bëri nañu fexe ba buñ ko suñu njaboot li soññu dayre bi itam nag muy dayre bi nekk fii ak bi nekk Dakar yëpp di ci waaye bu ñu soññee daayira yi dañuy soññu taalibe yi ñu xam ne ab daayira am mbooloo ñoo koy taxawee li ñuy dajee ci at mi lu néew la bu dee weer wi yëpp ajjuma bu nekk liñ ciy dajee du ëpp ñaari waxtu kon semaine bi nga nekk sa bopp ba bisu ajjuma ñaari waxtu ngeen daje yéen taalibe yi saafonte xamante yitte yi ku nekk ku ci am yitte ñëpp xam ko ku ci wéré di ñu xam ko seeti ko ku ci tawat am jafe-jafe yi àdduna ñu ñu booloo dimbale ko ku ci am mbégte ñu ndokkeel ko loolu dara du ko maye lu muy be booloo ci ab dayra kon dayra bi day mel ni li ci ëpp ñun ñoo koy jëriñoo ñun tarbiya kon nag nañ fexe ba daayira bi ñu suuxar ko mu dëgër te nag bu ma leen ko sañee wax ndax maa ngi yéen ko bokk mooy daayira bi euh, dese naa dox loolu nag du ci njiit li njiit yi ndax njiit yi moom liñ man mooy woote waaye boo wootee nag dafa am ñu la war a wuy si kon nañ xam ne ab daayira kenn ëpp ko bul jàpp ne man dama ëpp daayira bi buñ ma laajee ma joxe loolu lu baax la waaye di teew fa mbooloo ma nag ndax liñ ci bëgg mooy ñu xamante di dimbalante sëriñ Abdou Khadir maa ngi fàttaliku mooy at bi mu fi mujjee nga xam ne 90 daayira Mbàkke biñ ñëwee siyaare si ko daf ne li ngeen fi indi de li ma ci gën a yitteel mooy booloo gi ngeen booloo ñëw teew fi sama kanam kon booloo gi mooy lépp solo kon nag booloo ñëw teew fi kanam sëriñ bi moo ëpp nga toog ci sa liggéey rek ñu laajee nga joxe kon day mel ni da jàpp ne xaalis bi moo yitteel kër gi waaye bennoo njaboot gi moo gën a yitteel sëriñ bi kon nag nañ fexe ba benn la njaboot gi di ñëw daayira tey indaale suñuy soxna ak suñuy doom loolu nag ñu ngi ciy soññ suñu bokki taal bi nekk Touba ak yi nekk Dakar yëpp fu mën a nekk. kenn ku ne fa nga jógee boo demee daayira ba fa nekkal sëriñ bi ngay nga di ca dem xëy na doo mën a teewee ajjuma yëpp wala bis yi ñuy def daayira moo xam ci Dakar wala fu mu mën a doon waaye nag li ngay manqué bañ a bëri te daayira bi ñi ko jiite ñu xam ne yow bu la woote waree wooteel rek bu jotee ñëwal lal say basang toog ba heure bu jotee boo gisul kenn nga lemaat ko dem ñibbi boo ko defee ñaari yoon ñett nit ñi dañ la fekk si kon nañ di gën a góorgóorlu ci daayira bi te xiirtal ci suñu njaboot muy suñuy soxna ak suñuy doom loolu mooy li kàddu yi nga xam ne man seen mbokkum taalibe bi maa ko laabirante ak yéen ngir ñu gën a fonkat daayira bi bis bii itam at mu jot ñu ñëw di ko teewee ci kër sëriñ bi ñu gën ko fonk kenn ku nekk fu mu nekk ci biir réew bi ak ci bitim réew fu mu mën a nekk mu jot mbokkum taalibe mu aju ci kër gi bu ko gisee mu xamal ko bis bi xamal nag bis bi lu ñor sëriñ bi la li ko ci ñor nag mooy nii ngeen def ñëw yéen ñëpp booloo xamante eh, saafonte delluwaat ci yitte yi loolu yomb na at mu jot benn yoon nañ ko fonk te gën ko yaatal te eh, gën cee xiirtal suñu njaboot kon li ñu def lu may dañ doon ubbil sëriñ Cheikh Ahmad Mokhtar Bousso ñu jox ko kàddu gi mu am ay kàddu yoo xam ne dañu sant te ñu ko bu baax te xam ne lépp njëriñ lay doon kon sëriñ bisimilah. bismillahi rahmaani rahim. wa maulana muhammadin al amin wa ala ajmain wa baad asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi yëkkati ab nuyoo bu sell bu màgg di ko jëmal ci suñu sëriñ Eh, Sidi Mokhtar Mbacke moom sëñ Abdul Qadir jaar wàcce ko ci eh, suñu baay yi ñu fi fekk ak mag yi ñu fi fekk wàcce ko ci mboolem kilifa yi fi toog ak mboolem soo mbokki taalibe yëpp nu ngi leen di nuyu te di leen ziyaare bu baax di amati mbégte itam bu baax a baax suñ suñ borom waat ñu bis mel nii ñu ko ci sant te ko ci gërëm waxtaan wi nag yaakaar naa ne ndigal rek a ji ci bàyyi ndax du jataayub waaraate te du doon du doon jataayub xamle itam ndax xam-xam bi du ko mate waaye jataayub kuñ jox ndigal la mu ci nab nabi mu tollook nag mbooloo moom saa suñ jugee di def mbir dafa war ci ñoom lañuy def ñu xam lu mu doon dafa suñ tubaab su jàngaloon ne jaadu na ci bépp mu kallaf lépp lu muy jug di ko def mu xam la muy def lu mu loolu sëñ Tuubaa ñu ko jàngal sëriñ bi itam lépp lum joxoñu murit kanam dana gën a leer nga xam ko ak nga ñàkk ko xam njariñ lay doon loo xam ne amaana yi ci sa gis-gisu bopp ak ci sa tolluwaayu bopp fa nga koy yaakaare mën naa bañ a doone noonu ma tàmbalee ci ziyaara bi ngeen def nii tey rek nga xam ne ñëw nañ ñun ñëpp di ziyaar si sëñ bi bu leen jàpp ne ab daje la wala rencontre annuel wala neneen ni ko niñ ko baaxoo xamee ci baat yi tubaab yi di jëfandikoo pour désigner benn ndaje muy am rek at mu jot déedéet ziyaar ci boppam dafa bokk ci yoonu sufiyanke yi bokk ci yoonu képp ku bëgg lu baax bokk ci yoonu murit sëñ Tuubaa ci boppam moo ñu koy jàngal ci cofeel ak nammeel gépp amoon ci sangam ba alayhi salaatu wassalaam ci bëggoon koo ziyaara loolu ku jàng raaya tuuti danga nga fa dégg suñ bi ci wax ay ay waxin woo xam ne wu daw yaram la ak njariñ li nga xam ne moo nekk ci ziyaar zur man tuhibbu wa in chattat bika daaru wa xaala min dunihim sahlun wa awxaaru laa yabna annaka bu'dun min ziyaaratihi inna al muhibba li man yahwa uzawwa baat boobu rek day day day lu dëgër nee na képp ku ne la nga bëgg foo jaar nag danga nga dem di ko di ko nemmeeku ci loolu kon nañ xam ne te mm, euh, ziyaar moom itam euh, nit yàlla yëpp dañ ko mosoon a bàyyi xel di ci xërtal nit ñi ñu koy def Cheikh Ahmad yi boo jigitoo ca moom wax na ne boo ziyaara sa kilifa da am na ñuy wax mëdët da nga am tëbb goo xam ne ne sëriñ bi dana la koy tëbb ci loo yëg ak lu yëgut mooy loo xam ne lu sax la ci suuf yi sax la ci yoonu nitu yàlla yi ñu ci daan soññee di ci wommate kon fa ngeen bàyyi ko bu fi ngeen agsi di ziyaare seenub sëriñ bu leen jàpp ne ndaje kese kese la waaye na ngeen jàpp ne euh, jëfe ndigal la waaye benn la ci euh, moyen maanaam jumtukaay yi ñuy jëfandikoo ngir jariñ ci sëriñ kon lu am solo la loo xam ne euh, mat naa bàyyi xel jamono nag day dox nit ñi ci nekk itam suñ borom di ni muy évolution bi am ci jamono jamono nit ñi dañuy dem ba càgg yu bees day ñëw di leen fab bi su ko defee nag ziar foofu lay euh, euh, taxayoo moom en face mooy nit ki lim nekkoon lépp xëy na dana ñëw ci sëriñam benn fan fàttaliku moom mooy kan xamaatam lan moo ko war dëgg-dëgg ndax am kilifa maanaam wommatu ci ron kilifa dafa nekk loo xam ne doomu aadama da ko munta ñàkk aslan moom ku ko defut ci ci ci ci ndigal yàlla itam def ko ci sawaanu iblis wala billah te loolu alxuraan sax dañu koy wax ci ay bërëb yu bari même iblis bi yowmal xiyaam bi gars yi biñ demee sawara wëlbatiku gestu ko ne ko nag yow daal tor tooñ nga ñu mën a déet yàlla da leen a woowoon ngeen lànk ma woo ngeen ñëw rek waaw am bu leen bu leen ma yedd yedd leen yedd leen seen bopp falaa tu falaa taluumuunii wa luumuu anfusakum waaw yàlla da leen a woowoon ci njub ngeen lànk ma woo leen ci caaxaan ngeen topp ma loolu nag moo tax toujours nit ki dafa war a fexe ba lien bi ko taqal taq euh, ak sëñ bi bu mu fexe ba mu dagg mukk bu daggee moom sànku na su ko yëgee ak su ko yëgut moo tax da nga dégg ci muritug léegi gi nga dégg ñaan sëñ bi xàmmeewu maag sëñ bi ko dama faa dem ay yoon yoon waaye ab murit bu demee ba sëñ bi xàmmeewu ko war naa seetaat boppam ndax xam ne moom pas-pas bu woyof woyof la yor xam na na xam ne taxewut na war a taxawee na loolu euh, di ko bàyyi xel sax dafa am beneen euh, principe ci murit bu muy bu muy màbb boo xam ne nii bu doy waar léegi nag ak lu jamono euh, yëngatu yëngatu murit yi nañuy xam ne yoon wii du du loo xam ne dañ koo fent nii rek ci kaw Serigne waa moo ko def tegal ko ay yoon képp ku ne murit nga te bëgg jariñu ala kulli xaalin ak lu jamono rëb-rëb euh, euh, principe yi sëñ bi taxawoon foo jaar nga ci jàll ngir bëgg jariñu sa diggante ak sab sëriñ yooyu nag sëñ bi moo ko limal boppam bañ na ko ba mu ko limee ba dafa xam ne damaa bañ ngeen waru bi mu bi mu waxee ñeenti melokaan yi nga xam ne ci la am murit di jaar ba nekku murit dëgg-dëgg sëñ bi nee way naa ko nag dama ko yaxal fii def ko text boo xam ne damay bëgg ngeen waru ndax waru dafa doy waar mooy ci li mooy sànq li ëpp ci nit ñi fi ne dafa bari ñuy waru ñoo xam ne léeg-léegi jëf lu baax a leen war wala yaasu billahi taala maanaam dañuy def tuuti njëf lu baax daal di cay sukkandiku ba def ne àgg nañ te fekk demuñ fenn te loolu sëñ Tuubaa ko wax boo demee ci xoqal bu kaaw sëñ Tuubaa na ñi am cër ci yàlla dañu jàpp ne sax ñoom yellawuñ ko yaraw na anfusahum duna al wara abadan wa annahum lam yaliqu bil karamati ñoom dañu jàpp na ñoo yées ci nit ñi moo tax jëf tuuti lu baax daal di dellu gannaaw wala nga def na yow pare nga ci ñeneen ñoo war a ñëw loolu du jëfiinu murit du jëfiinu ku bëgg àgg ci yàlla du jëfiinu it koo xam ne nii euh, engagement bi nga am dëgg dëgg dëgg sa digganteeg sëriñ bi yaa ngi koy doxal ñeenti mbir yooyu nag li tax ma koy waxaat dama bëgg jamono bu ne ñuy bàyyi la ñu orthodoxie murit li fi sëñ bi bàyyi woon wul te dara du ko changé ñeent yooyu moo fi des ba léegi képp koo xam ne nii yëg nga ci sa bopp ne góorgóorlu nga ci xamal ne murit bu wér nga képp ku yëg ne benn yoo xam na ci gaawal nga góorgóorlu loo ci mën a ci renforcer boobee nga def ko képp koo xam ne xam nga ne yooyu nekkoo ci benn nag nga xam ne ci sa bopp nga nekk waaye ci dara sëñ bi da koo tënk ci ñeenti mbir bu ci njëkk mooy nit ki dafay bëgg ab sëriñam bëgg nag dafa am solo lool ci nit doomu aadama ci boppam ba ci ñi nga xam ne so toppuñ yàlla seetuñ leneen dañuy xeltu ci àdd doomu aadama rek dañuy wax ne nit ki ira bëgg-bëggam moo koy pousse ci mu def lu mën a nekk moo tax ñoom dañ koy ba ci falasife eh, yi ñuy def philosophie dañ ko fonk lool di wax ne bëgg ni mën a yóbbi nit ndax bëgg mooy indi eh, li ñuy wax pas-pas bu dëgër te mooy indi nammeel goo xam ne mooy tax nit ki def moo tax am naa ci arab yi ku doon wax naan al kullu yatakassar amaama ragbati wal irada nit ku su bëggee dëgg dëgg dëgg li mu bëgg nee na montagne yi sax bu nekkoon ci kanamam mu toj ko jàll te loolu sëñ Tuubaa moo ñu koy jàngal sëñ bi li tax mu neex lépp loo wax moom moo la koy da koo pratique ba noppi doon ñu ko digal moo dafa waxoon ne bi Cheikh Ibrahima Fall ñëwee di jébbalu ci moom wax ko ne ko man de sëriñ bi mu bëgg eh, ci histoire bu gudd la mu àggale ma ci yàlla su ma ñëwoon ba jamono fekkuma ko fi ñu ma fii mooy ab bàmmeelam rek sama yitte ak sama nammeel ak sama pas-pas dina tax li ma bëgg ma am ko sëñ bi moom wax ko lu gën a kii lu liggéey moo tax kenn xamul lu mu mu ne ko man day Moustapha alayhi salaam su ma ñëwoon jamono mu wër ma ne suuf si may teg sama tànk rek nekkoon na ci biddi yi may tiim daan nañ ko tiim maanaam univers bi ma nekk nekk na ci rek sama pas-pas ci moom dana tax li ma bëgg ci moom ma ko am moo tax ba in kuntu an ardil madinati sa eh, sa na yi bém bu soree yonent bi sallallahu alayhi ci loo xam ne kenn mësu ko am te kenn du ko am damay darajay xadimu rasul sallallahu alayhi wa sallam mahabba boobu murit bu nekk war na di ko yeesal ci sëriñam bu baax a baax di ko xool ci boppam di yëg ndax moom mi ngi koy yëg ni mu ko waree a ndax lu ñuy suuxat la pas-pas ak ak ak ak mbëggeel dañ koy suuxat boo ko suuxatee nag dëgg-dëgg day am benn jokkaloo boo xam ne da ciy daal di am loolu mooy tax nga mën a mëdët bi Cheikh Ahmad tiijaan yi daan wax nga koy mën a am bu baax a baax mulaazama bi am ci diggante murit ak sëriñam mooy taqoo googu day daal di am bu loolu jàllee bi ci topp mooy jëfi ndigal bàyyi tere muy loo xam ne nag lu mat a taxaw jamono bu ne la ndax dafa bokk ci li nga xam ne balaa àddunaa dox jëfi ndigal bàyyi tere bàyyi tere dafay am te mooy luñ wa loo war a def bu jotee nga def ko waaye ñu la aaye loo xam ne dañ la ko aaye bu lañ ci seen loo nekkoon ne ñu la laa bàyyil nga daal di nga daal di koy bàyyi ca sansa loolu yi nag képp ku ci taxaw xamal ne sag murit wér na dëgër na it sa pas-pas dëgër na te mooy ndigal yëpp da nga ci ndigal yi nag ndigal yàlla yee ci jiitu tere yi te tere suñu borom yi mooy ci jiitu loolu moom lu waay gàtt-gàtt alliwoo ne man xam nga li baax ak li bon la sëñ Tuubaa li ñëpp di def te di ko nëbbu rek bu ñu xam ne boo ñëwee ba ci kanam sëñ bi ñëwoo ko fee def jërë ngay laaj kenn xam nga ne baaxul lépp loo ñemee dem ba ci kanam sëñ bi nga di ko fi defit xam nga ne loolu lu baax la moo tax kon kenn ku ne na farataal loolu te mooy jëfi ndigal bàyyi tere bi ci toppaat mooy yi nga yeneen ñaari mbir yi bu njëkk bi mooy li wax tarkul i'tiraad te mooy di di bari looy gaaral mooy koo xam ne jamono bu nekk moom au lieu mu yittewoo euh, ayib boppam muy xool ci sëñ bi moom ayib ju muy wër ak seet loolu Cheikh Abdul euh, Wahab Ash-Sha'rani nee na mandarga moom bu ko nit yëgee ci boppam na xam ne maanaam dagg nañ ko dañ koo dog moom ci ci ci càllale gi kon lu day waara loo xam ne nit ku ne war na koo war na koo moytu te mooy jamono mu nekk muy seet ak làmb lu mu xool ca ca ca ca ca sëriñ ba wala lu muy ci li ko sëñ bi wax waxuma jëmmi sëriñ bi sax jëlee naa loolu kawe ne bëpp waaye ci li ko sëñ bi defloo wala mu digal ko ko wala mu tere ko ko mu cay am mu cay jéem a xalaat moom lu mu cay gaanal parce dafa bokk ci mandarga yi nga xam ne ñu ba ci ñun suñ suñ suñ suñ suñ suñ réew yi loolu bokk nañ ci li ko teree dem mooy dañoo respecté wul hiérarchie mooy digal bu bu ñëwee rek des ko war a dexe waaye du du du yaay ne saa su ñëwee nga am ci sa sa sa sa sa xalaatu bopp ak sa jëfinu bopp parce que loolu itam day daal di tax li fi nga saw debin dootu rafet te dootu euh, gaar bi ci toppaat mooy nit ki itam su xasee wommatu ci sëñ bi day bàyyee boppam nag sëñ bi maanaam du caage ne da ngay ñëw jël sëñ bi jox ko sa genn wàll te sa genn wàll gi nga def ne sëñ bi amu ci amu ci àq loolu demewul noonu ab sëriñ lépp lañ koy jox te duñ seet ci moom dara ndax yëf yi sëñ bi du du yaa koy jariñ waaye moom moo lay jariñ Cheikh Mahamadul Fadel daana wax naan bés rëg-rëg ji bari siyaare beeg addee ji dégg mu fattu ba nit ñi waxee mun leen am denceel ma rek kenn du ma ci dam am denceel ma maanaam diggante sëriñ ak taalibe bi noonu la demee taalibe bi dafay ñëw ci sëriñ bi ngir jariñu waaye ñëkkut lu muy jariñ sëñ bi te loolu ba tey sëñ Tuubaa daf koy jàngale Cheikhul Khadim kàngam yi nga xam ne ñoom la njëkk a wàccee ci yoonu murid yëpp ba nga xamee ne ñoom ñëw nañ liggéeyal sëñ bi ba am ngërëmam ba sëñ bi laaj leen luñ bëgg mu defal leen ko ba sëñ bi di mën a faj seen aajo sëñ bi amagut li mu bëgg kon da xam ne ñoom njariñ li kay ci ñoom ci sëñ bi la jógee jëm ci moom waaye mënut a jógee ñoom jëm ci sëñ bi ginnaaw yow bi mu lay defal yow li nga li faj sa aajo moom sëñ bi ci woppam boppam demagut ci géej gi ba aajo moom di faju loolu euh, dégg-dégg bu xóot la sëñ bi mooy roykaay yu moo tax toujours boo ci demee dangay ngay teel a noppul li nga ci dégg mooy yow loo jàpp ne yaa ngi koy defal sëñ bi defaloo dara sëñ bi sa bopp rek ngay defal ndax yëf yi moom kenn ku ne euh, na ko sëñ Tuubaa waxe woon la kenn defalut kenn dara kenn defut kenn dara mbir mi li nga yëkkati di ko def defaloo ko kenn sa bopp nga koy def boo ko sàgganee itam sa bopp rek nga sàggane waaye du caagin ci sëñ bi lay aju wala ci ci ci ci déedéet yow yaa war a ñëw ngir jariñu fulla nag dafa bokk ci doomu aadama li fi mu war a jariñoo da koy fonk euh, saa su ci ñu mu war cee taxaw taxawaay ba nga xam ne moo ci jaadu su ko defee nag euh, kër gu nekk ak mbooloo mu nekk dañoo am aw melokaan ndax eh, fii ci kër Sëñ Abdul Xaadir fii ci atub sëñ Seydil Muxtaar moom Sëñ Abdul Xaadir dafa am nuñ leen xame loolu tam nit da koy murit bu ne daf koy war a xam murit yi dañoo war di xam ne seeni tabaax bokkuñu maanaam nit ñi seenu seeni caractéristique bokkuñu sëñ Tuubaa euh, euh, baat bi bu ma bëgg a wax sax xeeb ko ingéniosité li ñu koy waxee maanaam xarañ gi ko suñ borom defoo lañ ci xarañ jëlale naa may yàlla yi mooy nit ku ne noo mën a mel melokaan woo mën a mel dana la ci fekk defar la loolu tax ngay mën a fekk ci ëttu sëñ bi kàngam yoo xam ne kenn ko ne mook sa morom bokkuñu doxin bokkuñ melo bokkuñ euh, fi ñu jóge bokkuñ statut social bi ñu yoroon waaye teewul ñëpp ay mën a ñëw jariñoo ci sëñ bi loolu li nga ci dégg mooy kenn ko ne fañ la jaarale kër ga nga nekk dangay ngay xencu seenu doxin soo ci bëggee raw nga doxe ci ñoom Seex Abdul nag al istiqaamatu lañ ko xamee maanaam jëfe sunna ju leer naññ naññ nañ loolu lañ ko xamee te mooy ëpp cëram moo tax du du du du du du du jaas nga seen daanaka li ëpp ci njabootam ci ak imaama nga leen di gis loolu seenub cëram nit ki nag la sëb sëriñ nekkub cëram danga cee war a roy jàpp ko ci moo tax képp ko aju ci ñoom li wër sa digganteeg jëfi sunna yi kenn wëru cee man danga ko war a fonk di ko xam di ko topp ndax mooy neen sa sa sa sa delluwaay ci ñoom delluwaay boobu nag moo lay may nga am li nga bëgg ci sëriñ bi ndax saa su fekkee ne yaa ngi e, melokaan yi ma waxoon yépp am nga ko te itam e, li sëñ bi bëgg ci yow dana ko am yow li nga bëgg ci sëñ bi danga ko am kon loolu lenn la ci rek luñ bëggoon a jukki wanewaat ne mbir mi ba àdduna di àdduna ba léegi nii rek la demee bu kenn waru ndax àdduna coono kese la suñ borom moo ko def comme comme nii laxad xalaqnaal insaana fi ahsani taqimi astaghfirullah bëgg ma woon a waxoon bi ma bëggoon a la mooy euh, laxad na insaana fi kabat doomu aadama suñ borom du ko bind ci coono te coono boobu ala kulli haalin dina ko dina jël énergie bi mu jëmale ko ci lu baax baa mu jëmale ko ci safaan waaye fu mu jaar dina ko def moo tax kër kër ji murid ji di nekkee ku leen ci gis jàpp ne ab coono la xamul li xew parce que faneen foo demoon ci àdduna société boo mën a dem nit ñaa ngay kër kër yi fi mu ne Europe gii ndaw ñi jugte di dem ku ku xam nañuy dundee xam ne ci coono kese lañ ne da seen koo xam ne bu xëyee suba teel lay xëy këram dem liggéey su wàccee bu ñëwee diggante bi muy préparé wu di li lekk ki def yëf bu dee koy def sport mu def sport su paree day dem tëddiwaat. léegi jàngut alxuraan julli wu defu dara waaye waat nelaw bu xëyaatee nekk ci léegi ci loolu lay nekk ba retraité benn amoon na passion sociale yu baax mu am ko acca dem toog fële di sàmmi ay xaja ki def yëf passé ci dundam yëpp ba mu jeex coono kese la nekk noppalu benn yoon nit ñi nga xam ne ñi ëpp ci nit ñi it léeg-léeg liberté maanaam murit ni mu lay xañee liberté nga xam ne da toujours dañ lay yilif Euh, ñu leen xirtal ci ne léeg loolu ak ak ak ak noggutu la ak nangam ak nangam ba ñu gone yu ñàkk fayda yi di topp ci internet réseaux sociaux yi di déglu discours yooyu xamuñ li xew parce que liberté ñëwul ci nit ki libertinage maanaam lu ma neex def déedéet borom xam-xam yi ci gën a xarañ ci di ko gëstu ci philosophie dañuy wax ne ki ki ki ki ki ki ki nit ki balaa am bonheur maanaam euh, li ñuy wax texe àdduna ci ñi nga xam ne àdduna rek la am bala ko am dëgg-dëgg mooy mu sentir ne def na warteefam ku mel ne Bertrand bind na ci lu bari nee na nit bala nga am saada bala nga am bonheur mooy nga jëfi ndigal te moom waxut ci ndigal yàlla yi de waaye ñoom liñ jàpp ndigal mooy eh, sa ngëm-ngëm ak sa conviction bi nga xam ne jàpp nga ne mooy doxal àdduna bu dee yow koo xam ne da ngaa gëm ne eh, rabi àll yi dañ koo dañ leen a war a aar war leen a fonk dalay jaral am na dañ ciy dem ba jël risque yoo xam ne seen bakkan mën na cee loolu kuy seetaan Greenpeace ak yu mel noonu dañ ci jël risque boo xam ne yow murid yi liggéeyal seen sëriñ sax duñ ci jël risque bu toll noonu c'est parce que dafa gëm ne jëf warteefam ci la ci la bànneexam di nekk moo tax yéen murid yi itam xam leen ne seen bànneex seen liberté mi ngi ci jëf li la war nit ki saa su jëfee li ko war rek dana yëg ne moom Euh, def na warteefam te euh, euh, sentiment bi muy am ci bu bu jëfee bu jëfee warteefam loolu digg dëgg nag mooy liberté bi nit ki am waaye liberté du lu ma neex def ndax doomu aadama alakul yaa du libre waaw dafa dafa limité dans le temps dans l' espace dafa limité même ci man-manam ndax lu waaye xarañ-xarañ ci ñun la ca gannaaw miir bee fi ne ump na la force nga wëri donc benn kar nañ sa liberté noonu lu waaye am am am am bis bu set boo xëyee gis loo moomu kar nañ sa am-am lu nit xam bari bari bari bari man-man ala kulli haalin mu am loo tali moo tax nag bi ci ëpp doole mooy li siñ bii doon wax mooy ñi nga xam ne dañoo fekk seeni waajur jëf lu baax ñu continue ndax doomu aadama boole mi xam dañuy wax ne doomu aadama ñaar rek la lim nekk moom ak histoire am dañuy wax zakiraam histoire da koy romb loolu alxuraan moo ñu ko njëkk a jàng moo ñuy wax ñu nit ñi nga xam ne seeni waajur dañoo nekkoon ci lu baax ñu ñëw topp leen ci lu jëf ju baax jooju suñ borom day da leen yéegal ci seen waajur yooyu walladina amanu wa tabaatum duriyatuhum bil iman alxaqna bihim duriyatihim alquran dafay wax ne ñi nekkoon ci lu baax seeni sët ñëw nekk ci lu baax dañ leen yéegal ci foofu kon foofu la nit di yéege ne moom nekkee euh, lam bëggoon am na ko lam doon wër di ko ñoddi jot na ci safaan bay yàlla na ci yàlla euh, musal mooy ñi seen waajur nekkoon ci njub tege ci yoon wu baax ñoom ñu feddi géew ñooñ itam euh, ci sànkute lañ jëm fa xalafa min ba'di xalfun adaau salaat wa tabaxu xam ne itam seeni waajur dañoo nekkoon ci njub ñu feddi géew ci alkande rek lañ jëm kon nit ki ngir mu mën a nekk nag bu baax a baax yii ñu waxoon ci ci ci ci caractéristique yi xam ne dégagé nañ ko ngir murit bi am ko ngir mën a nekk murit dëgg-dëgg alaa kulli xaalin day da ci moom su doyee ci moom nag day daal nekk murit bu wér bu baax boo xam ne nekk na ci li mu war a nekk te bu ëllëg bu dajeeg boromam durus ca it xéewal rek ko fay xaar su ko defee nag bi ci toppaat mooy sëñ bi junj na ko sëñ Maam Mor te mooy mbooloo alaa kulli adduna moom ba sosoo ba léegi organisation méthode ci adduna bépp di dox dajale gën la ko moom sëñ bi mos na koo joxe ca njaaree misaal mu siiw moomu ngeen di dégg ñi mu wax la woon nañu wut ay bant mu ñëw mu ne damm leen ñu damm ci lu gaaw mu wutloo waat leen yu toll noonu ñu ñëw mu dajale ko kum ne dammal ngay yëkkati yëkkati doo ci man dara mun leen nii nag la li fekk yéen a ngi booloo lu ngeen bëgg da ngeen ko am te sax nag murit gi moom booloo sëñ bi moo ko njëkk def ba muy def lu jumaa njaareem bi bi muy waaj jumaay Tuubaa bu ci nekk ay sas la doon def yoo xam ne nii euh, biñ ko dajalee ba ñëw daf leen a wax ne leen aw yoon rek laa leen wan day tax bu ëllëgee lu ngeen bëgg dangeen ko mën a defal seen bopp fu ci seen kàttan yem ngeen yamale ko fa dem wutiwaat ñëwaat ndax liberté dafay toll ci li ma wax léegi mooy nit def li ko war rek ku def li la war daal wàcc nga ni ko wolof di waxee kon kàddu yaa ngi foofu laa koy yemale di sant sëriñ bi bu baax a baax ndax kilifa euh, Baye Serigne Ndiaye Guède dafa daan wax naan kilifa kornetu caaf la maanaam doo ko tànnal sa bopp la lay nekk ci sa xéewal la boo ubbee loo ja fekk mooy sa muur ñun ñu yàlla xéewal la ñu am kilifa gu mel ni suñu muur la waaw yaakaar naa ne li ma wax nii ku nekk mën na koo xool ci moom ndax sëriñ boo xam ne ni li ñuy xool ci sëriñ lépp mi ngi ci léegi mu am beneen plus boo xam ne ñu ko ci fekk bëriwut bëgguma tooñ sëriñu kenn waaye li koy yàlla may ci ci ci jikko ju rafet ak ci nangul nit ñi seeni seeni seeni ayib ak ci attan doomu aadama yeeg seen i ñol-ñol loolu jafe na nga gis nit ku yàlla may lu toll noonu. kon nag ñun ñi nga xam ne ñun loo ko suñ borom xéewale nit nag boo amee fulla ba suñ borom xéewale la xéewalu gu toll nii da ngay am fulla yi nag tibb ci bu baax suñ Musaa Ka la waxoon ne ku yebu tex ku yebu ba bàqi baa ngi kenn téeriwut sëñ bii nag noonu la mel tex ñi ko xamut mooy bu tawee taw bu bees nga dem ji bu la yàlla dogale nga am kilifa goo xam ne nii la ko yàlla melloo te ku ne bëgg koo am nag. da ngay am fulla ju toll na yow bu la ci kenn jiitu te nga aw góor góorgóorlu nag ba yow tex ndax bu ëllëgee nga mën a góob lu day sekk asalaamaaleykum wa maa ngi jégalu ci guddal gi baax a baax. asalaamaaleykum wa yéen suñ bokk tali fi daje ñi yëkkat suñ kàddu di teg ci kàddu yu naqaree tegi kàddu ndax lii fi suñ Maamoor Jatra wax dafa doyoon sëkk ci ay kàddu ak sama rakk ji fi toog jóge léegi muy Ahmadou Makhtar so kàddu yu rafet yi fi teg ci ànd ak xam-xam daanaka ay waxam yu baal leen samay wax ndax li wax rek kuy wax tam loolu ngay mën a waxaat waaye dafa tolloon ne boo jotee ndigal faaw nga jëfe ko rawatina ndigal loo xam ne danga koo jotee ci koo xam ne ki jëfe ndigal ci la ko ñëpp xam mooy suñ Sidi Moxtaar mii ndax kër Sëñ Abdou Khadre gi suñ Tuubaa sedduñu ko ñoo ko bokk ca kenn ku nekk ci ñun xam nga taxawaay bi mu ci taxaw ceeg rafetal ak ci jikkoom ju baax aku lewetam aku tabeem aku yaatoom ca kenn mënta doxa dox mukk ba gis aw naq aw aw naqaram lu am meram wala lu ko nuru ca ñun ñi nga xam ne ñu ba kër gi kenn ku nekk xam na ne ku am yitte ci kër gi la yitte jëm ci am eh, doxe na ci doxin woo xam ne yóbbaale na ci ay magam ndax li leen war li leen war ci kër gi yëpp moom moo leen moo leen ko defal ndax lu fi xew moom rek li ñu gis li ci ëpp eh, xoolu tam nag koo xam ne kii danga nga ci moom ak ku jébal ci moom la yemale moom jëmi si Abdou Khadre Sëriñ Tuubaa rek la xool ci ñëpp loolu nag doon jikko joo xam ne eh, jikko ju rëy la ju rafet la waaye bu fekkonte ne daa yema ci lool rek melokaan yu baax yëpp day daje ci moom waaye da caa dolli képp koo xam ne mas koo yilif ci kër gi rek topp na ba topp na wax ne kenn mësul koo toppi ca toppin moom lay topp itam dalay jox boppam ba mu jeex tàkk ca daray wardu ci dugg la ko tàmbalee si Modou mi nga moo doon moo moo doon kilifa kër gi gis na kenn ku ne gis na fam fam fa ko si Modou tegoon loolu ne la ko waral fam teg si Modou rek moo moo ko si Modou delloo ndax wala dafa wax ne kon xawma nu nu ma koy def ndam la dafa tax nit dañ la def noo xam ne mënoo ko def nenn lu du fa teg ko ci kaw noonu nekk nekkoon si Modou ke bi mu fi jógee itam yàlla na si borom subhaanahu wa taala doole ay leeram yéeg ko ci maqaamaay ay baayam daraja Xadim Mustafa waaye bi mu fi jógee suñu seex meek fuutam kenn ko nekk gis na ab taxawaayam ci bis li muy xewle lépp nag yi fi xew gannaam ci du ko fekk tam moom la ci jiital moo ko ci doxal moo ko ci waxal màggal Sëñ Abdou gii ba mu ko yoree ba nëgg ni ba noflaay bi ci ay ay kilifaam am moo leen ko moo moo dox di coono ba moo ko yanu moo ko yanu kon nag ku mel noonu nga am na kilifteef da koo topp ba mu jeex boo jógee na ko man ka dama laa bëgg jox sama kilifteef ah war ngaa xam ne da nga koo jox koo xam ne kii ku ñu roy la kon nag yéen ñi ñun ñi xam ne yàlla dimbal nañu ba xam ne mooy suñu kilifa ci kër gi am nañu roykaay boo xam ne ah, dañ koy roy rek waaye du neex a dab ndax eh, jikko joo mën roy ci moom dana am loo ci bàyyi loolu nag day laaj ñëpp xam ko euh, lii ci ñun daal li nga xam ne moom la ci mën a wax jikko yu gën ci jikko yi yàlla jox na ko kenn nattablu loolu koo xam ne kii amul frontière ak menn mbindeef ci kaw suuf rawaate nag euh, euh, murid yi waaye rawaate nag ñii mu bokkal kas bi képp koo gis képp ku ko gis rek wala mu wala jëm si ci moom wala mu jëm si yow mbégte rek nga koy boo jëmee ci moom mbégte nga yóbbaale ndax danga xam ne nga ko fekk bu jëm ci itam mbégte la da nga da nga ànd ak mbégte da nga xam da da loolu nag euh, suñu borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo ko defal te jaar ko ci xadim Moustapha ñu ngi ñaan si borom subhaanahu wa taala doolee gudda ci wéral ko te yokk ay maqaama ak ngënam ci musal ko ci lépp luy gàllankoor doomu aadama ak fu mu mën a bàyyi ko ba euh, liggéey bi xam ne ndas na ko di ko liggéey yàlla na àgg fa mu jëm ci dara bañ koo dog loolu nag ko ñëpp ñaanal ndax ak yàggam fii njariñul murid la waaye njariñul kër Sëriñ Abdou Khadre la ndax kat taxaw na ci taxawaay boo xam ne am na loo xam ne bu fekkoonte ne nekk foon dana bari lu sooxe loolu ñun ñëpp xam nañ ko moom kon nag yàlla nañ ko yàlla fayal ci dara jeex dama Moustapha ca ta ca jàpp ko ca taxawa ko ca mësoo ko ca aar ko ca it eh, ñuy soññ suñu bopp ñun ñëpp rek ca xam ne daal li ko bokk yi baax yi wax sëñ Mamour yi wax na ko sëñ Ahmadou Mokhtar wax na ko am na kilifa goo am na kilifa kilifa goo xam ne bu la ko yàlla joxee eh, dal la koo baaxee kilifa nag yaar rek la kilifa goo xam ne gi yàlla dala ko dala koo baaxee ak kilifa goo xam ne gi yàlla dala koo nattoo kilifa bu fekkee daa mel na mu war a mel yàlla dala koo baaxee santal yàlla ci loola bu fekkente ne dañ ci àgg si lu naqari na nga xam ne mënu ci dara waaye yàlla dala ko nattoo na ko mu ngir ngir yàlla moom nag kilifa gu ñu sant ngir yàlla yàlla ko yàlla tax bu jeexit mu salaam asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi sant ñëpp di sant sëñ Mamor Diatara ak sëñ Maxtaar mi fi doon wax yaakaar a sëñ Maxtaar li wax neex dool dara nag moom day wax ne bu may taalif mu ne mooy sama entraîneur waaye bu ma waxee lu jub mu ne ànd na ca bu dee cooxi doon mu ne sama yoon ca loolu nag dama bëgg muy ànd ci ñaar yëpp rek kon boo waxee ba noppi xam naa dinaa xaw a jaaxle ci mën a wax ci gannaawam waaw waaye dañuy sant baax nag di wax taalibe yi euh, sant gi ñuy sant sëñ si dañ koy ñaanal dañ koy ñaanal dañ ko sant dañ koy ñaanal ndax sëñ Muntaxa kat dafay nekkoon topp ay magam topp ay waajuram ba tey ñu koy moo tax fi ne kenn gantulu ko sëñ Sidi mii nag loolu dal na ko yàlla na ko yàlla yàggal te ndam loolee sëñ Muntaxa moo am moo tam ndam lu toll noonu ci barkib Sëriñ Tuubaa kon nag yéen ñu topp ci moom li ngeen def mooy da ngeen topp ci moom ci ndigal ndigal nag boo ci xasee nekk rek yaa ngi ci kaaraange goo xam ne dara du la ca fekk xam naa gannaaw yof dama bett dama indi samay waxe bopp dama indi waxe mag ña ndax sëñ ba jaxat daf ni man bamba doy na ma doyloo naa ko duuduma fab téere ki maxtuma ak ndombay përi di ko sol koo xam ne bëgg na gàllaaj ak alal aku nit na daal di jóg soobu géttam giite moo di ndigal ku soobu gétt gi biir ak biti soobu gu wér duudul gisee lor te ab xontam du jeeti asal mboolem ku soobu te génnul jenn lor du ko dal soobul te bul génn ndax kuy génn lëf di ko jël ki samp gétt gi day wër gétt gee nga fegal béyam yu lor waaye béy wuy génn lëf di ko jël aw béy bu takkooni téere kiy galante amul ab sàmm itam léegi nga gis ay bukki def ko ndawal jógal wutib sàmm yow mii te aw ndigalam sàmmay musal nit ni téere kiy galen du musal xarit gisal rëbb baa ngi xëy soxu fetalam dem romb gétt gi wéy dem yooti refa fetal xam nga li tax rëbb bi jóg romb gétt gi wéy romb béy bi di wéy di yotti rab wee li ma gis sàmm bee ko waral li tax mu jóg rey rab wee ñàkki téeri taxul li tax mu jóg weesu béy wii sàmm eh, takki téeri taxul am sàmm tax béy wi deewul ñàkk sàmm waral rab wee ni jànjang te kii néewul ki rey la waral sëriñ mi ñun fa bu ñun ndoom baa gi téeri di fab tegal na lor faaw ma ñëw yi si gim luñ sol suñ si di mi ne yoon jaar lu naw yoon képp koo topp da nga jaar yoon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk taalibe yi ñu ngi siyaare ñëpp di siyaare di ñaan timit sëñ Muntaxa Mbàkke Basiir yàlla na fi yàgg la ñu sant nag gannaaw loolu sëñ Sidi moom sëñ siidi mbokk taalibe yi ñu ngi laa siyaar di la gërëm di la sant di ñaan nag di la yàgg fekk fii ndax lii ñu am ñun taalibe yi yow la la nga gis nag ba nama toog ak ñun yendoog ñun ci liggéey rek la toog wax bi ñu fi wax yëpp kilifa yi li ñu fi wax yépp moom lañ doon waxtaane sànk ci saal ba taalibe moom day fonk sëriñam jëfe ndigal bàyyi tere ah, sëñ Modou Aminta Fall ca xel kom la ma ko waxee nee ma taalibee day day nangu bu nangoo toppe bu toppee daj ñii nga njabootee nag la ma ca mën a wax man mooy ne am nañ passif te di ñaan passif bi yokku di ñaan tim yàgg laa liggéeyal di sant nag koo xam ne kii tamit maanaam ndeyu kër bi la muy maam Bousso Diop ñu ngi koy siyaar bu wër xam na ba léegi teggilu loxoom ci kër gi ci liggéey bi di sant nag jiwri ñi nga xam ne ñoom lañu seq ak liggéey bi ñi nga xam ne féete nañ Ngunjaan xeet féete Thiès Mbuur Dakar Tëngéej ñoom ñëpp teew nañu ñu ngi sant euh, di ñaan yàlla tamit ñu yàgg teew li nga xam ne moom la fi sëñ si wax mooy mbiru taalibe rek xamal nañu tey dolli nañu nañ fexe jëfe ndigal rek moom daal lenn lenn lenn nekku fi lu dul liggéeyal si sëriñ ku ko def wallaahi la da ngay gis rek amul lenn luñ ci neexal nit xam nga fi nga jëm xam nga ki tax nga jóg dafa la war ci moom rek soo amee ngërëm rek moom yëpp sotti na jigéen yi nga xam ne ñoo nekkoon tey soxna yi nekkoon tey ci waañ bi tamit ñu ngi leen di siyaar ah di leen gërëm di leen sant ah, yëfu njaayeen yooyu ñu doon def yooyu ñu toggoon tey moom wax dëgg yàlla murite na lool waaw murite nañ xel yi daal dal nañu ku tiim bool yi di nga xam ne moom wax dëgg yàlla yaa ngi sa kër waaw taarkàlla waaw santaat encore bu baax daayira yi nga xam ne ñoo ñu wër yëpp di siyaare tamit ah, kii sëñ Maam Mor Sànq mi nga xam ne moo yor daayira bi wax dëgg yàlla bañ nga koo waxee tamit la ca war tim def na ko maa ngi delluwaat nag di gërëm tamit waa dakaar yeeg waa Ngunjaan yeeg ñëpp daal awma ci lu ma ci xalaat lu dul soññaat leen soññaat leen bu baax nga xam ne liggéey bi ñu tàmbali woon sànq waxtaanee nañ ko at bii ñu dugg duggati moom nañuy defaat rek inshallah nañ fexe nag bu ñu toog ba ñuy ne yëguma koon xamuma koon la nga xam ne moom mooy xarale euh, portable yi ñu ngi koy def mooy groupe yi euh, ñu fexe nag ba rek luñ fi wax rek ndigal boobu ba xam ne buñ buñ dégg rek xam ne sëñ bi wax naa leen ko sànq nee naa du ma leen wax mukk loo xam ne sama xel la jóge damay dem ca moom mu wax ma la may wax ma wax leen ko loolu daal euh, bokk na ci li nga xam ne bëggoon naa ko wax euh, soxna Xadi Saane moom tamit yi nga xam ne moom mooy yor jigéen ñi tamit ñu ngi koy siyaar wér xam nañ pasteefam ak ñi nga xam ne mbooloo yëpp ñi mu àndal jigéen yi yëpp daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm gannaaw loolu nag euh, mbokki taalibe yi ñu santaat sëñ bi bu baax rek man daal du ma du ma du ma ndax war nañu yoon teg nañ si yoon te wax dëgg yàlla li ñu fi wax yëpp bu mbokk yi waxee ba pare rek amatuñ dara lu ñu fi wax dara lu ñuy prouver amu fi moom la li mbokk yi wax daal lañu ànd te ñu ngi koy ñaanalaat di ko ñaanal daal fan yu gudd lool amu am wér taxawuñu nag euh, ba nga xam ne bu ëllëgee kanam sëñ Tuubaa moom bu soobee yàlla danañu ma fa mën a teew ñu ngi koy ñaan defal ko ñu yëpp wax dëgg yàlla foofu daal laa mën a yemagum fi mu nekk nii jërëjëf maa ngi siyaar yi ñëpp nag. ñu ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk trop turam ak santam di nuyu sëriñ bi di ko ñaanal sun borom yàggal ko fi lool. te guddal fanam te may ko ak weer di sant mbooloo mi bu baax a baax di jégalu ji kaddu yi nag xëy day kaddu ndigal waaye waruñ fee wax eh, maa ngi sant nag mbooloo mi nga xam ne ñoom laa jiite nga xam ne jiital nañ ma te fakkatuluñ ma di ko seereel sëriñ bi di wax seen pas-pas ak seenu njàmbaar wax dëgg yàlla mbir mu jugee lum jàmp lu mu jafe-jafe danañ ci góorgóorlu danañ ci wane seen pësteef kon nag yàlla na yàlla fay leen te dooleel leen te liñ bëgg ci kër sëñ biit it suñu borom defal leen ko di sant it sëriñ jëwri sëñ Modou Diop jëwriñ mi ak ñi àndal ñëpp ak Moussa Njing ñoom ak ñëpp bu ñu limee dañuy jóom di ñaan suñu boroom kàttan leen te lii ñu defit yéene yiñ ci am lépp yàlla leen ko yàlla defal ba defal leen ci lu lu kawe njoot di soññe bu baax nag comme ni ko sëriñ bi waxee ndax lii li ci am solo mooy bennoo gi rek la ci sëriñ bi jublu benn googu mooy nañuy xàccandoo di dóorandoo loolu nag li koy waral mooy xay na dem moom jafe na waaye yomb na ndax léegi matuwaay yi matu na ko mooy àdduna bi kenn warut a mën a umpaleeg sa morom te ni ñu ko waxee sëriñ bi mooy jëwriñ jëriñ loolu sëriñ Cheikh Mbacke dañu ko waxoon te ci yéen ba ci ren jii dañu ko waxaat def nañu yéen de seen sëriñ mooy jëwriñ kër yi kon lépp lu fi waaye def yéen la koy defal lu ñuy def ci kër Sëriñ Abdou Khadir rek bu ngeen deful lépp yéen a ci war a jiitu loolu nag dañ ko war a taxawee liñ koy taxawee mooy ku mel ni sëñ mu jóob ak ñeneen ñi mu àndal ak ñi dëkk Mbuur ak Ngunjaan yëpp nañu yëgoo di xàccandoo bu xew amee ñëpp duñ mën a dem waaye ñu munta demit yëkkati seen barke lu jox ña mën a dem dem ndax bërki démb lañ demoon Thiel le 13 ak yeneen ak yeneen programme day am te ñun amul lu may sëriñ bi amul lu may sagab sëriñ bi ndax bañ demee sëriñ Cheikh ñëw na ba ca dal ba ñu ne ñii ñooy waa sëriñ Sidi te mbooloo ma néew na lool biñ ñëwee nag sëñ bi xolam sedd na nee na bëri gi amu ci solo Pastef bi rek moo te am nañ Pastef loolu nag nañuy bañante mu ñuy dal du ñëpp ñoo mën a dem tool ya adduna moom ñu ñëpp ma baaxoo waaye nag ku munta damit ba ñu yëg su dara amee ñun ñëpp ñu yëgandoo ko ñu xam ne lii moo xew ñi munta demit mën a joxe ndax ba ñu wax mbooloo ñii dañuy joxe seen alal ñii joxe seen doole ñii joxe seen xam-xam loolu nag nañuy booloo di àndandoo groupe whatsapp yaa ngi fi téléphone yaa ngi fi dara muntu umpee di jëwriñ dafa am baat bu ñu la tuddee loolu dafa war a feeñ yow jëwriñ jëwriñ yi xaw ma ñi ñi ngi la koy wooyee mais loolu dafa war a am lu comme yow la yàlla defal yow yaa fi mag te biñ ñëwee ci kër gi lañ la fekk jiital nañ la tey duñ la fakkatal loolu ànd nañ cee yow rafetlu nañ ko loolee da nga koy doxee ba lépp lu mën di xeweti soo ko déggee woo ma ne ma nangam nga woo keneen ñu wax luy lan lan moo ci suñ xalaat ñu doxale loola sëriñ bi kat wax dëgg yàlla neex naa àndal sonu lu ñu ci dara te lépp lu mën di xew damay wax ne fu ngeen yem naa ko yegg wala lu ngeen ci bëgg su ngeen demee ci aboo ngeen seen nu mu baaxee nga jox ñu ko loolu nag sëriñ bu loo te musuma laaj lu ngeen am mus na day leen xaalis indil ma ko sëñ siiri bañ taxawee léegi mus am nañu day la fu ñu mën di toll danaan ma leen lu ngeen baaxee màggalu suñu Abdou Khadre li muy ñëw ñëw sëñ Sidi mënut a ñëw ci kër gi ba contrôlé ñu su ma ne ko mbàkkee màggal gi danaan ma seetal nu mu nit jàmbu yoon la ma masa woo ma am naa ci lu ma ndax te togg waxee rek boobu sës na bañ ko dalee màggal ba nëg ni ñun ñooy seen nun ñu neexee ñu defe ko nag yi danaan ma xool leen li ci biir su manqué ngeen wax ma ma dolli li ngeen yor daayira bi su doyut ngeen wax ma ma dolli kon kooku neex naa àndal mbusu ñoo sas man de ay at yu bari maa ngi jiite daayira bi ñaar yoon la ma sa dégg sëñ bi woo ñu xaw ma ñett te sëñ Muntaxa moo laaj ñu ci koy joxe mbirum boppam mosuñu koo jox du bâtiment yu ñu tabax ci kër gi du lu sol du leneen lu ma wax ne mas a jox li amut te loolu ma seere yaakaar naa kenn du ko seere ci mbor kon sëriñ boobu neex ne dara teewu ko yàlla dara dog yàlla na ko fi yàlla yàggal ba lépp ko sa ko la dara dog yàlla na suñu borom yàggal la fi lool sëriñ jawrin yàlla na nga yàgg ci ginnaaw sëriñ bi ñun di bi ñu yàgg ci sa taxaw ñu ngi jégalu nag ci kàddu yi bu baax jërëjëf